billah bismillah inna waliyallah hasbi allah wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib bokki jullit yi taalibey murid yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte mu rëy ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bisu laylatul xadr di bis boo xam ne suñu borom subhaanahu wa waxee ne sahru ramadan allazi unsila fihi alquran euh, teg ci ne inna ansalnaahu fi laylatil xadr ci la ñu xam ne kon ci guddi laylatul xadri ci la ñu wàccee alquranul karim euh, laylatul xadri nag nekk guddi gu màgg loolu nag ku ne xam na ne Serigne Touba lépp loo xam ne ñi ngi ciy tudd alxuraan kenn jiituwu ko ci kenn ëpp ko ci ab cër ndax li mu ci liggéeyal yàlla ci wàllu woowu liggéey bu ràññiku la koo xam ne fa nga tàmbalee rek mooy lal bi ngay tëdd alxuraan nga cay tër di ko sotti ay parfum di ko tagg kon kooku cëram ci alxuraan lu ràññiku la cër boobee nag lii lépp ci taxawaayu soxna si dafay wane ne sëriñ tuubaa seq ko kenn tax mu tànn ki gën a féete tu tànk ci njabootam jagleel ko ko ndax loo gis rek cër la bu suñ borom di cërale loolu moo waral tey fépp fu ñu tudd laylatul xadri ci réew mi sa xel ci soxna may munatu mbàkke rek lay mën a dem loolu nag kon dañuy delloo lépp ci sëriñ Touba mi nga xam ne mooy way juram ndax nekkoon na fi ak i kilifaam ni ki seex Mamadul Fadil njëkk ko cay jox ndigal ak mboolem ñi mu bokkal sëriñ Touba góor ak jigéen ñëpp féete ko ci ak mag te téewul ñu nangul ko cër boobu mu féete leen ci ñoom itam nag wootu leen ci itam loolu kon dafay wane ne sëriñ Touba li ko alquran jaraloon euh, ba bisu laylatul xadir bi nga xam ne ci la alquran wàcc loolu moo sabab kenn ci njabootam taxawee ko muy soxna may mënatu mbàkke wuutu ci ñëpp soxna si nag ku ne xam na ne loola rek la tegoon bëtam muy fas ci yéene mott li Serigne sëriñtuwaa ak li nga xam ne moom la ci wutoo njabootu Serigne Touba gi ku ne xam na ne àggoon na ci wutal ko tool sax boo xam ne moom lay liggéeyal ngir bis bi tey lépp lu ca jóge jànkate alxuraan yi la koy jox séddale leen ko ngir ñu koy waajale bis bi ngir mën a am dal ak teewlu la ñuy jàng lépp mu delloo ko àddiyee sëriñ Tuubaa bañ na ko ba wutal ko kër spécial ngir loolu muy laylatul xadri loolu kon wane na ni cëram la te cër bi nangu na ko xam na ko te téye na ko loolu euh, lu bare bari fekke nañ ko ci ndax bu bis bi masaana egsi li muy njëkk a def it mooy daña dajale euh, mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa yi di leen berndeel di sàkk ñoom ñëpp ñu doge si fa moom mu boole taalibe yeeg ñëpp kenn ku ci nekk la ca war mu di ko def euh, loolu nag taxawaay la bu ràññiku boo xam ne bii euh, xam na ne Serigne Touba moom kenn mënu koo fay. moom nag kenn ku ne da ngay seet la nga xam ne moo ciy sawarteef ak fa ca sa man-man toll nga di ko doxe waaye moom da ciy yóbbaale woon ñu bari wuutu ci ñu bari moo tax bis bi mosu koo dencal dara taxoon na it mu ne bu soxlaatul sax kenn di ko wutal benn bis gannaawam bu dul bisu laylatul xadri bi kon yàlla nañu ko yàlla fayal kon daal bis bi bisu jullit yi ñëpp la nag waaye nag képp ku bokk ci yoonu murit war ngaa xam ne bis bii soxna si taxaw na ci wàll woo xam ne wii kenn fekku ko ci euh, ba sëriñ Touba moo ko cërale loolu mu ko cërale nag moom it xamoon na ko jàpp na ko bu wér ànd kook bokk yi ak taalibe yi kon yàlla na koy yool bi fekk fa mu nekk di sant soxna Bali yi nga xam ne it moo fi mag ci njaboot gi ak Serigne Mouhamadul Mahfous ñoom ñu taxawee bis bi taxawaay boo xam ne bii bëgguk soxna si rek lañ ciy dàkk te xam nañ ne fa ko soxna si bàyyi woon yokk nañ ci seen kem kàttan ba taalibe yi kenn ku ci nekk boo duggee da ngay jàpp ne sax soxna si mu ngi ci biir loolu lépp kon seen taxawaay la te li ci am solo mooy dafa am loo xam ne nag boo ko donnoo da ngay fexe mu yokk te bañ a wàññiku te ñoom doxin woowu lañ doxe kon yàlla na leen fi yàlla yàggal te may leen ak wér te li yéene yëpp wasalaamaaleykum wa